سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ذوي الرضوان والتمكين mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla buur bi subhaanahu wa taala di julli ci yonenteem ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen bal xaq di leen bàllu aq te ñaan yàlla sun borom subhanahu wa taala mu boolinu jéggal sunuy xaq yi dox sun digganteeg moom ak suñuy moroomi jam di fas yéene dellu si waat ak yéen ci laabiire ak i njëriñ yu ñu baaxoo ànd ak yéen bés bu yàlla sàkk ci seen youtube bi di le grand secret en olof tey ji nag ñu fas yéenee ñëwaat ak yéen ci benn secret bu am solo lool boo xam ne yaakaar naa ne képp koo xam ne euh, déglu nga ko rekk danga ko war a mën a yittewoo te muy loo xamante ne itam jafewul suñu fàttali saa su nekk ne lépp loo xamante ne nii ñu ngi koy ànd ak yéen ci ay wàllum secret ay njëriñ lépp dañ ciy tënku ci alquranul karim ak sunnas yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon képp koo xam ne yaa ngi seetaan ci youtube bi benn vidéo nga gis ci loo xam ne méngoowul ak alxuraan su boobaa même bu fekkee nga enregistré woon sama numéro tamit wala nga seetaan vidéo boobu rek sama video topp ci tamit nga gis sama numéro xamal ne lépp loo ci seetaan te méngoowul ak alxuraan karim ak sunnas yonente bi alayhi salaatu boobee vidéo dugaluma ko ndax léeg-léeg nit dalay woo di la laaj ci ay vidéo boo xam ne keneen moo koy dugal YouTube nag mooy faral di def noonu vidéo yi suñu niroowee wala ñu xaw a bokk ci li ñu jëm boo seetaanee bi beneen da cay toppaat ñaari bu fekkee nit ki am sama numéro nag mën na seetaan boo xamante ne nii ni dugaluma ko mu yaakaar ne maa ko dugal waaye looloo tax ñuy ñuy leeral lu mel ni ay ay vidéo yoo xam ne dafay aju itam ci wàllu nopp yooyu léeg-léeg nga gis ko ko dugal ci youtube bi wala ay xeeti kànnaar yooyu yëpp nekk na ay vidéo yoo xam ne ñun duñ ko dugal ñu ñu sikkiñu ñu ña nga xam ne ñoo koy def ndax kenn ku nekk ak na yàlla dogalee say mbir ngay ngay liggéeye noonu ñoo nag ñoo ngi sant suñu borom bu baax gannaaw bu ñu defalee tawféex ba am na ci lu bare bare bare loo xam te ne nii duñ ko dugal ci youtube bi waaye rawatuma rawatina nag koo xam ne dafay ñëw di ñu woo téléphone di am yu muy sàkku ci ñun kon vidéo nopp duñ ko dugal ci YouTube bi ku gis ci YouTube bi benn vidéo boo xam te ne day jàngale ci wàllu nopp euh, jarul nga ñuy woo tax xam na euh, nga xam ne du ñun du jar ngay woote ndax nopp dafa nekk mbir moo xam ne mbir mu doy waar la te fekk nit koo xam ne dafa ànd ak xelam ku ànd ak xelam nga fexe ba wëlbati am xelam mu jublu keneen loolu mbokk yi lu doy waar la moo tax te boo ko dugalee xamoo ñaata junney nit ñoo koy gis xamoo ñaata yi doomu aadama ñoo koy utiliser xamoo ñaata yi soxna lañ ciy lor lu ne mën na cee am imaginel yow nga dugal ko ngir lan yaa xam lañ ci jublu waaye dara jaru ko ci àdduna ndax nit ki lépp lu muy def rek war na caa bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax yawmul axira bi nga xam ne mi ngi sunu kanam te du jaas yal na yéex kon loolu ay leeral la woon yoo xam ne faaw rek ñu di ko leeral lépp loo xamante ne méngoowul ak alquraanu karim ak sunna si yonente bi alayhi salatu wasalaam duñ ko dugal ci youtube bi te jarul kenn di ñu woo di sàkku lu mel noonu ci ñun ndax duñ ko ko defal ndax lu ñu mën a am jëfe tënku ci alxuraanu karim moo ñu gënal lépp ndax àdduna bi moom dafa ñàkk solo kon maa ngi jégalu ci leeral yooyu ñu fas yéene dugg rek ci li nga xamante ne moo ñu tax jóg incha allahu taala ki nga xam ne dafa bëgg yàlla suñu borom subhaanahu wa taala yëkkatil ko ay darajaam ki bëgg yëkkatil ko ay daraja bëgg a siiw ولا سهم بوجو بني برب بو خامتاني برب بو كاوي لاي دون برب بو رانيكو ان شاء الله تعالى نا ديف دي داي داي كاويل نيت تي لولو خام ام سولو لا كو بوجو ولا nga بوجو سون بروم ييكتي لا ولا مو ييكتي درجه بوغا ام درجه جو كاوي دافال ان شاء الله تعالى بات يي ngay بيند الله كن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كي واتنا ما ميتوت رك بصوب يالله دينا كجل سكو دفه أه، سو بند الله كون بباري آية بونغوي بند ورفعناه مكانا عليا 1340 ورفعنا لك ذكرك 1340 وكلمة الله هي العليا 1340 لأنه لنا 1340 نقول بنا moom nag des koy des koy sangoo moom nag des koy des koy sangoo diirub juróom-ñaari fan incha allah ñetti ayatul quran yooyu ngay bind benn bu ne lim baa ngi noonu nga sangoo ko juróom-ñaari fan ko def suñ borom subhanahu wa taala mën na laa defal tawfiq kon xam naa dañuy yem foofu di fàttali mbokk yi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu yaxantu maanaam commerce di yëngu ci wàllu njënd ak njaay am nañ fi bari bayre njaay boo xam ne bayre njaay bu am solo la de ay xeeti bayre njaay yu bëri yoo xamante ne dañu dañu leen a dajale te benn bu ci nekk rek buñ ci yemoom mu doy sëkk waaye am solo gi mu am solo tax na ba ñu yéene ko ñi nga xamante ne ñoo ci yëngu incha allah képp ku yëngu ci wàllu njënd njaay rek te bëgg di gis clients yi foo toll suñ borom di la wamma tam nit ñi ñuy jëflante ak yow incha allah ku defee mën ngaa woote ci numéro boobu di affiche rek foo mën a nekk ci biir réew mi incha allahu taala livraison bi day daal di nekk gratuite waaye mbokk yi nekk bitim réew tamit ñu ngi ñu ngi ko fay yóbbante eh, seeni borom da ci jot ndax ñoom xam nañ xam nañu jumtukaay yi ñu koy jaarale kon ñu ngi yem foofu di leen présenter chaîne YouTube bu bees bi nga xam ne mooy les meilleurs secrets les meilleurs secrets les meilleurs secrets lien bi mi ngi ci suuf lien bi mi ngi ci suuf su ko defee su ngeen ko gisee rek incha allah taala da dangeen ca mën a abonné dangeen ngeen ca mën a abonné da ngeen ca mën a abonné fi mu ne may wax ak yéen nii rek maa ngi gis benn benn vidéo notification ci YouTube bi boo xam ne lu mel ne li ma doon wax ne duma ko liggéey lool loolu lañ dugal loo xam ne titre bi su ma ko bindee su ma ko liiree mën ngeen ko xam mën ngeen gis sit bi ko dugal dafa aju ci wàllu diggante borom kër ak soxnaam. waaye lépp loo xamante ni dafa aju ci diggante boroom kër ak soxnaam lépp luy tax ñu gën a bëggante gën a soppante xamal ne nit mën na koo def koo xamante ne du borom këram jigéen góor mën na koo def koo xam ne du soxnaam jigéen mën na koo def koo xam ne du boroom këram te loolu lépp lu ci mat a bàyyi xel la ñaare ñaar ñoo xamante ne yàlla boole na seenu diggante ñaan ci baax na ngir ñu gën a juboo waaye li ci gën rek mooy ñu bañ koo siiwal ci internet bi incha allah bismillah